ak désistement bi mu def ci biir sàmm sa kàddu. bon maa ngi jaajëfal monsieur Guissé. merci euh, si xalaatam ak li nga xam ne moom la bon man. ñii di laa ci ana daawar maa ngi fi tey waa Déthié la ñu invité tey ñoom ñooy joxe seen xalaat ndax askan wi bëgg nañ ñu leeral comme moom aussi may nañu loolu. aussi dañ koy rafetlu la fekk mu nangu accepté ñëw rawatina matin bi ni mu demee. bon man bu may ñëw euh, si kaw euh, Déthié Fall ak Ousmane. ji nga si politique li Déthié am dafa bëri. keneen ku ko defoon ñu xalab la waaye ci moom nit ñi mën koo accepter euh, xam nga lu xew dafa nekk ci benn coalition sàmm sa kàddu mm-hmm. mbir yi moo ngi tàmbali coalition Yewwi Askan Wi c'était quoi objectif dañuy ànd élection locale dañuy ànd élection législative mu demee élection présidentielle kenn ku nekk demal boppam mm-hmm. waaye deuxième tour ñu tase mm-hmm. comportement wu ci Fall li nga gis temps yëpp mooy deuxième tour bi nga xam ne amul Serigne Moustapha Sy kàddu yi mu yëkkati woon wax yëpp dag maa bëgg a chantage du woon lenn lu dul ne deuxième tour moo amul Barthélemy Dias benn problème la amoon mooy bu señoon Ousmane du jiitu Macky la ñuy bàyyi mu jiite li nga xam ne moo di réew nee naa la dafa am ñetti coalition yu am benn coalition bu bëgg a defar réew mi benn coalition bu bëgg protéger seen ginnaaw ginnaaw gi ñu leen joxee réew mi ñu yàqu ko waaye am coalition boo xam ne mer ngembu lañ te Déthié ci coalition mer ngembu boobee la duggoon meroon na nag foofu laa jëm pourquoi ma ne leen meroon na. Mm-hmm. xam nga nga nekk ci dara ànd seeg Ousmane di ci xeex nekk ci ngay dund jafe-jafe bi Ousmane di dund nga xëy un bon ñu ne la jis nañ la ci coalition sàmm sa kàddu. coalition boobu askanu jàppale neen Macky opposition bi mu amoon si biir opposition bi ñoom la et man ma yàgg gëm ne ginnaaw gi ma gisee Déthié Fall ci biir coalition boobu dama ne est-ce que hmm. au niveau national liste bi ñu gisoon nekkul ne Déthié amul woon lu mu ci def ma ne est-ce que nekkul ne la plan de Déthié Fall bi ñu tegul ci élection législative est-ce que xalaatam la woon donc léegi man mi nga xam ne jàppoon naa ne décc ci loolu la bokkoon pour mu boo xoolee. Déthié jour bi mu demee si sàmm sa kàddu dugg na euh, euh, euh, pardon pardon biir bi mu demee ci coalition sàmm sa kàddu leen nga seetlu ne dañoo xëy ne kon Déthié dafa àndoon a yi moo yàqoon li si pour na ne dugg na si loo xam ne moom si boppam xam na ne fi mu dugg baaxul hmm. dafa génn il est le personne boo xam ne nee na dugg na si coalition mu génn def point de presse pour leeral hmm. naam ñenn ñi assumé ñoo tey lañ ca wax Ousmane dañuy xeex ak yow kon Déthié foofu la nga xam ne askan wi moom lañu wax man en personne li ma doon xalaat mu ngi ñu bëgg a wax loolu amul beneen bi tey boo gisee Déthié mu ñëw ànd ak ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko lenn la mooy ñi nga xam ne ñëpp dañoo jàpp ne mburu fokk fëriñ ñoom Barthélemy ni mu meloon keneen ak keneen ak maanaam ni ñu mel ak Ousmane mm-hmm. Déthié le fekk mu bëgg ñu bañ koo xoole bët boobu daa àndoon nag Macky sàll looloo tax lu mu jàppoon da koy baax léegi nag ñu ñëw si beneen ji nga politique et dañ ko bëgg a nangu Déthié dafa def erreur et c'est la réalité erreur bi Déthié def mara naan bu la taxee naan potit bu robinet tijjee nga rus mm-hmm. wax naa la fi la fois passée ne la Déthié Fall dafa am lu xew Mhm. nee naa la fi la fois de Déthié fal dafa am lu xew. Mhm. mooy dafa manqué temps de jeu. waxoon naa leen ko fi te joueur bu manqué temps de jeu c'est-à-dire. bu manqué temps de jeu équipe boo xam ne mën na fa dem football ji ngir nekkaat ci forme pour demaat ci équipe bu mag da koy def mooy ginnaaw gi nga xam ne ànd na imagine nga xeex nga ànd ak Ousmane mhm. Aminata Touré dem ba dernière minute mu jëriñoo ko Abdourahmane Diouf mu jëriñoo ko tey. fii docteur Abdourahmane Diouf nekk fii Aminata Touré nekk amul kenn ku ko gën a mérité Déthié Fall ndax il était la pendant les moments difficiles mm-hmm. da koy nangul mais léegi man lenn laa jàpp mooy Déthié yaakaar naa ne naam dafa am lu ñu waxtaanee woon élection présidentielle na kenn ku nekk demal boppam mm-hmm. mais Déthié xamoon na ne moom en personne mënul doon li nga xam ne moo di président man damaa jàpparoon ne moment boobu Ousmane nekkee ci ay jafe-jafe moment boobu Ousmane soxlaa ku ko épaulé dooleel moment boobu la waroon ñëw mais Ousmane nag moment boobu da see xam leen mooy malgré ànd nañ malgré am nañ ay vision lan moo tax Aminata Touré. mën na ñëw dooleel Ousmane si moment bi mu nekk si jafe-jafe lan moo tax docteur Abdourahmane Diouf mën na ñëw àndil dooleem Ousmane moment bi mu nekk jafe-jafe sa laaw ki nga xam ne mooy yow sa doomu ndey la yéen ñaar defandoo lu metti la mm-hmm. kon da jàpp ne si politique malgré ànd bi ànd am nañ malgré xeex ne mais am na leen loo xam ne mooy intérêt personnel la maanaam am na foo xam ne di ci bi mu li mu doon wax bu nekkoon gëm-gëm la dëgg Ousmane moment bi ñu ko jàppee Bassirou moment bi ñu ko jàppee ci Fall warul mën a doon li nga xam ne moo di gàncax mm-hmm. mm-hmm. non après après dans la bàyyi nga développé. après naam si naam si sart yi la woon. Mm-hmm. léegi na xam nga lu xew. moo dal Serigne Moustapha Sy bi mu naan Ousmane maa ngi lay xaar biñ ne Serigne Moustapha Sy Ousmane da ko chantage ma ne la noonu au contraire sëñ bi moo nekk di chantage ndaxte ànd nañu nit ki. Ousmane bi mu demee ba àndul ak ñoom ñi mu àndal la njëkk ñëw samp fal leen fal leen fal leen mais moom ban moment la Déthié Fall ñëw mm-hmm. ban moment la Déthié Fall ñëw et li Déthié def nan lañ ko mën a jàngatee ji nga tey mënoo ne Barthélémy Dias ñëpp xam nañ ni mu mel ak Ousmane Sonko mm-hmm. mm-hmm. ñëpp xam nañ Pape Djibril Fall ni mu mel nan la ma ne def erreur dugg si li nga xam ne mooy sàmm sa kàddu waxuma la waxuma la nga foto ak ñoom officiel na am officiel lu de mais la fekk que nga nekk si liste boobu en politique dafa am loo xam ne patience la foofu nag boo jëlee Déthié Fall nga teg ki nga xam ne moo di Malick Gakou la foofu laa gëm leen dama naan malik moo gën a constant que Déthié Fall xam na ne dem na li ñu waxoon si sart Yewwi Askan Wi lépp am na. waaye taxul ne bi loolu yëpp jeexee ñu war a demaat ay élection dañ ne àll wu mënti woon xew Ousmane laa jàppale ndaxte man naam dañ ko waxoon ci sart yi hmm. waaye taxul ne ma dem ci beneen coalition mais lu tax Malick deful erreur politique di ci Fall war a mën a def erreur politique boobu beneen bi aussi dafa am loo xam ne da ko def dafa am sens bi di ci amoon mooy danga naan nit ku constant la nit ku dëggu la nit la koo xam ne la mu wax mooy li wéy mais li mu def nii dafa am ñaar yoo si jàppe am na ñoo xam ne dañ naan ah Déthié kat léegi day wax di waxaat dina ne booy Idi la mm-hmm. malgré bi Macky lu jëlee Idi dafa taxaw ne du dem pourquoi nga mën koo des ci moment boobu nga mën koo des ci moment boo xam ne yow yaa ngi fekk ci coalition bi nga xam ne mooy sàmm sa kàddu et xam nga ne coalition boobu intercoalition la ñu teg. kon yow la nga doon bañ ci Idrissa Seck nangu nga ko si biir sàmm sa kàddu ak lu mënta xew da ngay nangu ne Déthié def na erreur beneen bi mooy. Mhm. le soir moment bii Ousmane Sonko ñëwee lan la si Ousmane Sonko gagné lan la si Déthié Fall perte xam nga Ousmane la mu si gagné. Mhm. xam nga Ousmane la mu si gagné. yàlla dafa def ne ñii àndul ak ñoom ñi nga xam ne bi muy wut bi Basiirou soxlaa ñëwuñu. Mhm. Ousmane ñooñu la njëkk a lijjanti seen i mbir nommé leen jox leen ay poste ñu accompagner ko. léegi Déthié lan la ñëw dernière minute entre Ousmane ak Déthié kan mooy gagné benn loxo Déthié bu ñëw lan lay yokk a Pastef sàllaar élection présidentielle moo gënoon metti te demaloon nañ seen bopp kan moo gagné Ousmane gagné na ñoom ban heure la ñu ñëwaat ne dañuy épaulé moment bi leen Ousmane soxlaa dëgg-dëgg ñëwuñu et c'est la réalité beneen bi nag pour mu dund ci politique dafa am ñaar loolu nag la sens boobu am jënga liy Déthié Fall def keneen ku ko defoon ñu ne la da ngaa transhumé et c'est la réalité man damaa jàpp ne même Ousmane mi am lu mu doon jaay benn gëm-gëm bi benn conviction bi ci boppam man damaa jàpp ne même bu waxtaan ak Déthié Déthié dafa waroon bàyyi ba élection yu jeex. mais vaut ko sax mu bañ a battre ji campagne mais vaut ko mu si sàmm sa kàddu waaye maanu bi mu wane si bi ñuy def investiture bi maanu bi mu wane si point de presse na mu wane maanu boobu dem toog ci si ruq ba ba lépp jeex. ndax xam nga looy seetlu. Mm-hmm. yaa ngi si benn coalition. coalition boobu faire face ak Ousmane Sonko. Mm-hmm. waaye léegi yow coalition boobee moment bi nga xam ne Ousmane dafa war a jàmmaarloog ñoom yow nga ñëw ànd ak Ousmane mm-hmm. léegi dafa am sens bi dee ci am. te nag loolu lañ ko ñëpp nangul mooy xam nga lan la muy ñëpp jàpp nañ place Déthié Fall nekkul ci sàmm sa kàddu et dama koo gëm ñëpp jàpp jàpp naa ne Déthié Fall tey amul woon kenn ku ko gënoon waroon mérité mu dajee ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko leneen li mooy erreur bi nga xam ne moom la def mooy warul woon dugg ci li nga xam ne moo di coalition sàmm sa kàddu googee nga xam ne. boo ànd ak Barthélémy Dias rek mooy égal yi ñaara yem. ndaxte moment bi ko Ousmane soxla mu nekk doomu ndeyam moment boobu la ko bàyyi dem léegi nag lan mooy xew nan la nit yi di xoolee baat Déthié mooy quelqu'un la koo xam ne boo waxatee duñ ko gëm quelqu'un la koo xam ne sàmmul li nga xam ne moo di kàddoom waaye nag lenn la mooy askan wi dañ ko koy nangul mooy lii askan wi di nangu dëgg dëgg dëgg xam nga mooy lan ñëw na fi nga xam ne bu ma señoon foofu lay ñëw dama ko yàgg gëm mooy Déthié palaasam nekkul si fe leneen li ma gëm mooy tey am na loo xam ne war na ko si mën na àndi mais nag tey boo xoolee lii yëpp xew kan moo si perte dëgg-dëgg. Mm. mooy Déthié li si lan la si Déthié di perte mooy kàddoom téewatu ko. kan moo si gañe Ousmane li Ousmane gañe xam nga mooy lan. Mm. coalition boobu moom nee na out ah, maanaam rey na leen. léegi man je pense que mm-hmm. moment bi Déthié ñëwee mm-hmm. nekkul moment boobu dafa waroon bàyyi ba élection yi jeex mu bañ a yëy bañ ci wàcc ngir xaar boobu ba fay jeex mu ñëw mais mënoo nga ñëwat ak ñee ànd ak ñoom ñee faire face ak nit ki moment bi ñu waajee def élection yow nga génn dem et ñëpp nangul nañ ko ne fi mu nekk fa la war a ne fi mu nekk moom foofu la war a ne mais soit erreur monumentale bi mu def mooy mara naan ba mu jaraloon ko naan robine yi tijji na nag rus na et c'est la réalité. jërëjëf jërëjëf euh, Daouda euh, monsieur Guissé euh, bu ñu ñëwee ci kàddu yi nga xam te moom la Daouda jigal yëkkati moo di peut-être li nga xam ne moom Déthié mën na ko si ñàkk wala boog mën na ko si perdre ndax jàppale ne ralliement bi nga xam ne rallier ngeen ko Pastef surtout désister bi nga xam ne désister ngeen ko ak moment bi ngeen ko defee loolu du leen jural comme ñu leen di xoolee nañ doon xoolee ñeen ñi bu saa yu ñu doon transhumé ne ñii dañuy wor wala amuñu di nga xam ne moom moo di comme seen émi seen seen bi ngeen bokk bokkoon di sàmm sa kàddu sàmmuñu seen merci beaucoup Abdou. Euh, Ahmed Mohamed Ahmed Mohamed. Mhm. Euh, par rapport à notre position. xalaatam la nangul naa ko ko j'aime bien un débat contradictoire mhm. amul benn problème euh, Daouda ci ay analyse lu wax ji metti na parce que aussi li ci ëpp solo ci la mu wax mooy dañu nekk